ndox jumtukaay boo xam ne mënta ñàkk bu ñàkkee rek doomu aadama am jafe-jafe am jafe moo tax ndox lu am solo la ci rek ndox bokk moo tax kuréel bi jël décision nañ dem Sénégal waxtaan ci Afrique ñu invité Afrique yépp nag Nous yep, une ñu une opportunité pour nous, collectivité territoriale muy mais commune ngay département ngay maire ngay président conseil départemental Nous, dans le cadre d'une coopération avec l'Association am association région francophone du kuréel bu mag boo xam pays francophone Nous, ñoo nous bokk ñun suñu homologue département nous ñu à ci association région francophone di ci doxal la man commission bi énergie eau environnement ñu ma fal assemblée Bamako dañ ma koy doxal opportunité la ñu invité entreprise yi nekk adduna si yëpp di yëngatu ci affaire ndox ñu ñëw Sénégal jox ñu ay opportunité pour ñu waxtaan ak partenaires yi ndax jàpp nañ ne commune ak département yi am nañ ci soxla bu baax te léeg-léeg duñu am mën am possibilité di seet fan bunt la war a fëgg ban yoon lañ war a jaar ban jéego lañ war a dox bi affaire ndox bi trouver ay solution moo tax nii kii bi Laurent euh, euh, Philippe Meunier moo topp ci Laurent Wauquiez bi nekk président région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes nekk Lyon kii moo topp ci moo jiite délégation française man leen na kaari ngeen indi yóbbal fi di lan ñu ubbi ñu dix huit entreprise di liggéey ci yëpp ndox ak assainissement fii ak suba ñu ngi fii ku bëgg sa projet am soxla ci loolu nga ñu waxtaan ak ñoom ñu wax fu nga war a jaar ñun association des départements bi yàlla def man maa ko jiite damay def intermédiation di leen jàppale jaar leen fii jaar leen ndax ñun tam mooy suñu cër loolu mooy suñu cër mooy waral réunion ah man nag ndox moom. Le Sénégal a fait des choses. Le président de la République a fait plan Sénégal émergent. Il a fait 5 initiatives. Je ne sais pas PSE jeunesse, PSE environnement, PS e, euh, économie euh, sociale solidaire, PS e industrie, PS e, euh, jeunesse. Je ne sais pas ce que c'est. Il a 5 actions de côté plan Sénégal émergent. Il a fait 10 actions mooy accès universel à l'eau et à l'assainissement accès à une éducation de qualité accès à une santé pour tous accès à une mobilité urbaine et rurale cinq initiatives yoo xam président def ci def ci taxaw lool lool lool lool teg ci ñetti programme yo xamné c'est des programmes révolutionnaires zéro déchet zéro bidonville ville créative loolu mooy tënk mooy solo muy illa plan Sénégal émergent